jërëgeen jëf mbokk yi ñuy seetaan si séeréer ressource sant ak séeréer rajo tey nag ñu ñëw ànd ak woykat bu mag ku gëm cosaan koo xam ne yàgg na si lool nag muy woy si wàllu làmb ñu koy woowee nag Selbé Djilor ñii di koy wax Selbé Linguère waaye li wér te wóor mooy que ne danañ xam tey kan moo nekk Selbé mu dëkk fii nga xam ne moom moo nekk Djilor Ambey wala Djilor Dionik tey nag mu nekk suñu invité si émission bi nga xam ne mooy Kilinen Ngal ne si rajo bu mag bii ñuy woowee Séeréer rajo ak si plateforme bi nga xam ne muy si wàllu vidéo et tout muy Séeréer Ressources Sant kon nag mbokk yi ñu ñëw Selbé nga wax ñu rek boo nuyoo ak nit ñi ba pare ñi nga xam ne ñoo lay seetaan suñu internet nga wax ñu kan moo nekk Selbé nuyu mbokk yi di nuyu auditeurs yi ak auditrices yëpp di nuyu borom kër gi Tamsir Diouf di ko ñaanal mook staff am yàlla yàggal leen fi lool ndax ñu ngi ñuy jàppale kon ñu ngi leen ay sant di leen di leen ñaanal gudd fan ak wér di nuyu sama famille eh, ci sama wàllu yaay di nuyu sama famille ci sama wàllu papa di nuyu am si jàmm yëpp te naan asalaamaaleykum.
bu ñu bëggoon a xam kan mooy Selbé Djilor ñii ne ko Selbé Linguère ah Selbé Diouf Selbé Selbé Selbé kenn fo an kan mooy Selbé
waaw Makayre Njaay i mujjinu ana dije mag mi Wolof man may Selbé Diouf Selbé Linguère juddoo yër waago màggee Djilor yaroo Djilor fii fii nga ma fekk mooy sama kër yaay fii laa yaroo fii laa màggee fii laa commencé sama carrière tam bi yegsi fi ma yegsi ci kàttanu yàlla
mun nga ñëw wax lan moo la dugal si woy ndax nag gis nañ ni làmb ngay woy te yàgg nga si nga wax ñu lan moo la si dugal ak lan moo tax tey jii nii fu nekk ñu si woo Selbé muy tourné si réew mi pour si wàllu làmb
waaw man mii di wax ak yow nag sama yaay mii di s- di ki nga fekk ni ci bunt bi léegi kooku da doon wéy mag di ko gis nag toppandoo ko nag bëgg ko lool nag ci sama xol xëy na lu mu ci bëggoon lépp man maa ko ko ëppale woon ma topp ko nag di ko topp di ko topp di ko topp ba yàlla dogal ma dugg ci aar bi ànd ak Xadi Juuf di ànd ak Xadi Juuf nekk ak Xadi Juuf ba yàlla weddi ma continuer di ànd ak soxna suñuy wax kee caw dëkk sexe la def naa ak moom ñaari at ànd ak Fat Njaay Baay Faal doo ko samp sama yoonu bopp
d'accord dañuy ñëw si ki nga tudd muy Khady Diouf Yerwago est-ce que mën nga ñoo ñëwal si Khady Diouf sa diggante ak moom ak kan moo nekkoon Khady Diouf parce que am na ñu bëri ñoo xam ne dañuy dégg Khady Diouf rek te yow mii nekkoon ak moom am lu mu def si yow yow itam nga am loo dund ak moom est-ce que mën nga see ñëw tuuti si Khady Diouf waa Makayre mun naa ci ñëw bu baax mu doonoon ku yaatu ku bëgg aar bi ku fonk aar bi nag ba boo ko bëggee mu bëggaale la ko Xadi Juuf daf ñu doon wax ne góor-góorlu leen ndax ëllëg damay dem te bu ngeen fi desee ngeen mun a mun mécc bi jëriñu ci ndax maa ngi ciy jëriñu kon bëgg naa képp kuy naan ci teen bi ah nga jëriñu ci teen bi tubaarkàlla macha allah mu doonoon ku yaatu ku mun a boot jëkkëram baax lool xejoog ñëpp Xadi Juuf dëkkoon Yerwaago doon sëy mbul jàmme borom këram tudd Moussa Sané ku baax ku ñu bëggoon nag ba fi mu nekk nii Xadi Juuf dundatul de waaye doo am semaine mukk di woykati làmb jaar ci loxo Xadi Juuf te woo la téléphone di la laaj ci loo nekk kon kooku tamit mu ngi béy wàllam ci waar wi
waaw ñu ñëw si Khady Diouf ndax dañ fa jaaroon te foo jaar rek am na loo fa jàng si wàllu woy Khady Diouf da ngeen doon jékki-jékki rek mu créer wala nan ngeen doon programmer seen làmb yi ngeen doon def ak woy yi nga xam ne Khady Diouf def ko doon woy
waaw Xadi Juuf nag macha allah xel mi dafa màccoon trop yal na xippee ci àjjanay firdawsi ya Xadi Juuf da ngeen doon dugg ci géew mu génne woy léegi te daf la naan li ma bëgg nag ma ko defal ndax boo nekkee ci ci dara danga ciy bàyyi sa xel pour nga mun cee jëriñu ëllëg da doon dugg ci biir géew wooy ci saa si ngeen awul ko te du- te du ko répété Khady Diouf daawul woon répété wooy ba tax na ku jaar ci Khady Diouf ku ne neex naa xàmmee waaw D'accord. Alors, ñu ñëw si wàllu bayre bi si wàllu aussi làmb yi est-ce que mos ngeen a dem benn jour ba ngeen xa ba nga sante ne Khady lii nii bayre la wala mën moo ko ko jox.
Khady may yàlla la amoon Khady Diouf néew ma amul woon bayre de waaye may yàlla la amoon ndax Khady bu ko neexoon tey bu woyee yor voix bi bu subaa mu yor beneen voix kon maanaam loolu daal daf doon changer.
waaw.
forme ko.
kon kooku mayu yàlla la am ndax tey fu ma woy tey ni ma woyee tey noonu lay woyee su waaye Khady Diouf da doon woyee ni tey bu subaa mu woyee neneen te saa yoo ko déggee mu neex kon may yàlla la amoon waaw.
Est-ce que si euh, woyi Khady Diouf am na woy woo si téye woo xam ne heure boo ko woyee wala boo déggee ñu woy ko rek sa xel dina dem si moom.
waaw Khady Diouf nag sama xel toujours ci moom lay nekk saa yu ma toogee ci géew sama xel day nekk ci Khady Diouf ndax bu la doon jàngal dala doon wax ne amal fula am fayda ci li ngay def si ngoom sax ñi ma woon a ànd ak Khady Diouf ci géew yéey ko wala mucc tàngal ñi ma waaw wuñu lan ko moo woon tax si moom kay da nga ko yëg.
déedéet dala doon wax ne bu dee dangaa yéey si sa ngoom nga dem toog fee woy si wuloo kuy liggéey dangay wone ne damay liggéey Khady Diouf ku doo doon ànd ak moom woy si ngoom di di di woy yéey si ngoom wala ngay woy mucc tàngal daf ñu ko doon tere saa yoo ko defee Khady Diouf dina la tere nga dem toog ca gannaaw ba làmb ji tas mu ne la woy si woo ñu woy si ñu ngi woy ba tax na ba fu ma toogee ci géew rek loolu ma doon jàng ci Khady Diouf mooy nekk ci sama kanam ba ba may jóg ci géew ga
alors est-ce que mën nga ñëw fàttali benn woyam si woyu Khady Diouf yi bala ñuy continuer si Selbé Djilor à 100 pour cent.
waaw Khady Diouf mun naa leen fàttali woyam lu ci bari waaye mun naa leen ci jox benn yéer waago ye jabar wan gi xaja daana ye yéer waago ye jabar wan gi xaja daana ye yéer waago ye jabar wan gi xaja daana ye Khady Diouf saa yum duggoon ci géew ba géew gi tar ba tar ba tar ba tar ba mu des demi final final mu dugg ci woy boobu moo nekkoon loo mais xam ne demi-finale finale rek la ko doon woyee. di si ci la ko doon woy fekk làmb ji jàpp ba jàpp Khady Diouf du doon woy woy boobu tànk nekkul ne da ngeen toll ci demi final final mu xam ne gaynde góor yi ñoo nekk ci géew gi ndax foofu dañuy wane ne gaynde ñoo des ci géew gi ndax képp ko xamante ne war ngaa waaf rek waaf nga ba mu des ci gaynde yi foofu la doon woyee loolu Khady Diouf yar waa
alors euh, mbokk yi ñuy seetaan ak ñi ñuy déglu si séeréer rajo séeréer ressource centre euh, tey jii nii euh, Selbé Djilor moom la ñu ñëw pour def ak moom benn waxtaan am na ñu bëri ñu ngi koy dégg waaye xamuñ exact kan mooy euh, Selbé ndax dañ koy dégg si làmb yi muy dem waaye nag ku mbapat la si wàllu woy ba boo koy seetaan sa yaram day daw si woy wi nga xam ne mu ngi koy def moo tax tey séeréer rajo ak séeréer ressource centre intéressé wu ñëw si Selbé waxtaan ak moom. Makayre Ndiaye di leen koy defal Selbé ñu ñëw si li nga xam ne moom mooy après Khady Diouf euh, feneen foo jaar euh, ba nga xam ne am nga fa aussi itam li nga xam ne mooy expérience si li nga xam ne moom moo nekk woy ndax woy nag euh, boo boo si mbapatul boo si yàggul ah boo moytul nag da nga xaw a laal ay mbiri jàmbur wala doo doo continuer si li nga xam ne yaa ngi koy def.
waaw di jëm ak bi ma jóge bi Khady Diouf nelawee yal na ay xam sedd mu xippee ci ajanay fi daw si may ànd ak soxna suñuy wax kee caw ànd naa ak moom ñaari at di jàngaat ndax aar bi moom toujours njàng la rek ba léegi mokkalaguñ sax ñu ngi jàng ba tey ma ànd ak soxna suñuy wax kee caw ñaari at di yokk xam-xam bi waaw ma ànd ak soxna suñuy wax kee caw ànd naa ak moom ñaari at di yokk sama xam-xam ndax ba fii ñu toog ni dañuy jàng ba tey rek mokkalagu ndax aar bi moom saa yoo yeewoo rek ci njàng nga toll kenn du ko man ba mu jeex bi ma jógee ci soxna suñuy wax kee caw ma dem di ànd ak Fat Njaay Baay Faal mu dëkk kawoon Fatou Ndiaye Baay Faal mu dëkk kawoon Fat Njaay Baay Faal ànd naa moom juróomi at ànd naa kook Fat Njaay Baay Faal ngir mottali xam-xam bi rek doog a mun a jël sama yoonu bopp bi ma demee nag ci Fat Njaay Baay Faal di mottali xam-xam bi ba yàlla may ma ma am ñu ma bëgg lool di ma engagé ci laa sampee sama yoolu bopp nag doog a demal sama bopp ndax boobu temps engagement yi bari na te mënuma ko boole programme mu jàmbur ci laa doogee samp sama yoonu bopp
d' accord alors euh, Selbé man depuis ba nga commencé wax dégguma nga ne lii dama ko jëlee si diw wala dama ko jëlee si diw woy wii ngay def yow bëgg moo la si dugal wala sa woy jur da nga fekkoon ñoom ñuy woy
waaw di jëm ak sama yaay da doon woy parce que mun naa ne suñu famille moitié bi yëpp dañuy woy ci ñoom nag laa sukkandiku bëgg ko ci sama xol tamit ba yàlla def ma yegsi fi ma yegsi sama yaay da doon woy da doon woy nag waaye moom du doon woy làmb moom du doon woy làmb moom lu mu doon woy woyu cosaanu séeréer la doon woy ay ngaajo jamono yu ngaajo moo amoon ay woyu ngaajo lañ doon woy woyu bali séeréer loolu lañ doon woy ñun nag bi ñu dugg see tombe làmb ji ñu dugg ci làmb ji waaye sama yaay da doon woy ngaajo d' accord Selbé ñu ñëw si woyi woyi làmb woyi làmb ndax fi nga jaar comprendre na jaar nga si Khady Diouf jaar nga si Kee jaar nga si ñu bëree bëri bëri bëri bëri bëri ndax woy yooyu noonu ndax Selbé dina toog ba mu yàgg mu créer boppam woyi boppam boo xam ne Selbé lii moom moo ko créer boppam bokk ak yi nga xam ne fi mu jaaroon si ñoom la ko donnoo
waaw man damay créer sama bopp damay woy nag cosaan yi ma fi fekk waaye ñu fi fekk waaw dama koy woy waaye nag am naa yoo xamante ne maa ko woyal sama bopp bari na lool woykat yaa ngi koy woy sa waay ba léegi xamuñu ki ko fent te man mii maa ko woykat yaa ngi koy woy te xamuñu sax kan moo woy woy bi kon da nga bëgg a wax ne ñoom ñu ngi jël say woy di koy woy te xamuñ ne xamuñ sax kan moo ko woy yu bari woy yu bari ñu ngi koy woy waaye xamuñ sax kan moo ko woy dañ koy dégg ci aara nii rek di ko woy fekk nag man mii toog man maa ko woy
woy yooyu noonu ngay ngay ngay ngay créer da ngay tëdd ba guddi mu ñëw sa xel nga enregistré bind wala woy yooyu noonu da ngay toog ba mu yàgg nga xëy ndekki ba suur wala nga añ ba suur mu soog a ñëw nan lay ñëwee si yow booy booy booy booy booy booy fent woy waaw di jëm ak man balaa maa gën a mën a fent woy sama dugg ci biir làng bi te su ma duggee ci géew gi su may dugg aaran rek xel mi day gën a ñëw damay fent ci biir aaran bi ay woy yu bari mais nag rawatina nag bu ma tëddee guddi daf may ñëwal su ko dee damay jóg jël sama téléphone def ko ay audio bàyyi ko fi bu ma xëyee toppaat ko waaye nag li may fentee ci biir arène bi moo ëpp su ba demee ci géew bi li may fent moo ëpp.
d'accord bala ñu ñëw si géew bi à 100 pour cent ñu ñëw si li nga xam moom mooy wàllu fent woy yooyu noonu dem nga sax ba ne am na ñoo xam ne ñu ngi jël yenn woy yi di koy woy te xamuñ ne yow sax yow yaa. fent woy woowu ba ñoom tey jii nii ñu si bénéficié wu est-ce que mën nga ñoo wax benn si woy yooyu noonu boo xam ne tey jii nii ñoom ñu ngi koy woy te xamuñ ne yow yaa ko yaa ko créé.
waaw di jëm mag mun naa la si wax benn bari na lool waaye benn rek laa la ciy mën a jox ndax suñ ko toppee day yàgg lool waaye bi Khady Diouf gaañoo ba am at motul sa at dem naa làmb coof yoor ma fental ko. alamba njiin gay ma juufee ngel ne yaay lay tigi meeg na yee. rokangan cerkami jufe alamba nyin gai ma jufe ngel ne yahi lai tigi meg na ye rokangan cerkami jufe alamba nyin gai ma jufe ngel ne yahi lai tigi meg na ye rokangan cerkami jufe boobu cofiyoor laa ko fente woon boobu Khady Diouf di doog a gaañu amagul sa at loolu mun nga see ñëw si olof mu gën a leer woy woowu nga nga nga nga fent mun nga ko traduire en wolof waaw mun naa ko mooy làmb yi sàjj na te dégguma Khady Diouf géew gi mu doon woy dégguma ko mu sab foofu te moo fa doon sab moo waral àllamba njin ga ima Diouf ngel ne yaay lay tigi meeg na géew gi yaay layti doon woy saa yu ma ci duggee sama yaram day daw moo tekki àllamba njiin ga ima juuf ngel ne yaay layti gi meeg na ruka ngaan cër kaami juuf d'accord alors ñi ñëw si li nga xam moom mooy ba léegi làmb ndax boo seetloo làmb moom ay xarba fuufa la tey woykat yi bëri nañu Selbé car macha allah mu ngi dem ay programme yu bëri bëri ñu koy jël ay dëkk dëkk di koy jël est-ce que mun nga ñoo wax rek si biir dem boobu ndax Selbé léeg-léeg du si am ay jafe-jafe wala Selbé mosta am jafe-jafe si biir géew
déedéet di jëm ak mosuma am jafe-jafe ci biir géew wax dëgg yàlla yàlla jàppale na ma lool nag ba saa yu ma demee programme naa ko wéy ba mu jeex te duma ci am benn jafe-jafe yàlla jàppale na ma ci bu baax a baax a baax a baax côté boobu moom wax dëgg yàlla awma fa jafe-jafe mais nangu nga ne il faut yéen itam comme ni mbëri di def ngeen def ko waaw loolu mënta ñàkk ndax gis naa ñenn si yéen ñi ñu ngi yore ay ay ay lu nekk bugguma tudd li ñu yor bañ ñu foog sax ne ñoom ñoom ñoom la yor façon xarba foofu bu nekk ñoom ñu ngi koy yor ñoom wéykat yi yi fës ak yi fësul loolu bu ngeen koy def da ngeen di aaru wala da ngeen lan lan moo waral loolu waa di jëm ak loolu mënta ñàkk ci làmb ji ndaxte ñun presque ñun ak mbër yi benn lañ sooy dem da nga war a yóbbu say jàjj war ngaa takk say jàjj ba mu baax nga doog a dem toog ndax bët yi lay samp yépp bu ci nekk am na lu muy jëriñ ci yow soo ko defee nag nga faggandeku sa bopp takk say jàjj dem toog yàlla aar la aar ña nga àndat ba yàlla def jàmm làmb ji jeex ci jàmm nga ñibbiseeg jàmm ak ña nga àndal d'accord alors ñu ñëw si li nga xam ne moom mooy woy léeg-léeg nga woy nit ba yaram bi tàng léeg-léeg nga woy nit ba deret bi tàng jër mu ñëw wutal si la ndax Selbé mos naa am cas bu mel noonu woy nit ba mu daanu yasi si kawam wala ñëw daanu si kawam wala am leneen lu mu demee.
waa di jëm ak loolu moom toujours daf may arrivé sax ndax bëgg yàllaa koy def da ngay dem ci géew doo xam kooku sax mais da lay bëggal boppam da ngay woy mu ñëw di fecc di fecc ba ba muy daanu sa kaw gis naa ko xamante ne daanu na yasi ba làmb jooju araamam la loolu gis naa ko te dafa ñëw fecc fecc fecc ba daanu suñ kaw daanu yas jaar noonu daanu yasi ba dañ ko mujj génne géew gi ba làmb jooju araamam la ma mujj ci am lu ma métti loolu nag waaye nag bëgg yàlla moo koy def te nag ñi ñu bëgg rek moo tax ñuy sonn boo gisee ñuy sonn ci aar bi suñu duggee fas suñ jom lu ñu mën ak lu ñu mënut ñu ko def di ko jéem di ko def ñi ñu bëgg ñoo tax ñu koy jéem di ko def est-ce que mbëggeel boobu noonu est-ce que mbëggeelu mbëggeeli kii la est-ce que nekkul li ngeen di laal bu ngeen di ñëw ko moom moo tax gars yi di def noonu wala wala wala wala noonu moom déedéet déedéet déedéet du loolu day am ñoo xam ne dañ laa bëgg te yàlla tax même da ngay ñibbi si sa kër sax ñu lay woo téléphone ña am na ñoo xam ne du ñu xam sa numéro mais dañuy wër di wër ku ko am ba ba am ko di la woo naan la dama laa bëgg yaay diw te yàlla rek tax yaay diw dama laa bëgg te yàlla rek tax saa yu ma la gisee damay kontaan saa yu ma la déggee ngay woy damay bëgg loolu yëpp day am d'accord fekk alors bëgg rek la.
ñi ñëw sax si téléphone bi daf si am solo artistes yu bëri bu ñuy soog a commencé dañuy bëgg ku leen woo téléphone dañuy bëgg am ay fans mais bu ñu demee ba siiw ba siiw boo leen woowee téléphone duñ la décroché seen fans bu leen di woo duñu ñu ñu leen di jàndi wala di wax ak ñoom ñeneen est-ce que Selbé du ko def moom itam.
déedéet loolu daa du yaa ma ngay seetaan de te ñu ngi lay loolu déglu.
loolu duma ko mës a def man balaa may gën a kontaan sax numéro bu ma xamul woo ma ne ma dama laa bëgg te yàlla tax damay kontaan ndax dama xam ne loolu xëy na du man du moom yàlla suñu borom bi moo ko def man de ñaan naa yàlla ci aar bi ma nekk ba keroog ma ciy jóge ñaan naa yàlla képp ku ma woo na ma yàlla may kattan ak dal ak sutura ak wér ba ma wax ak yow loolu maa ngi koy ñaan yàlla suñu borom bi D'accord. alors Selbé dëkk yi nga dem est-ce que amul dëkk boo xam ne marqué na la si wàllu woy làmb wala doo ñu ko mën a wax
waa da di nag ñëpp dañ maa bëgg nit nag du ñàkk koo xamante ne dalay marqué trop ci làmbam waaye nag man ñëpp dañ maa bëgg ba mënumaa tànn kii bàyyi kii en tout cas nit ñi bëgg nañ ma bëgg nañ ma trop tëggkat yi làmb yi bëgg nañ ma supporters yi bëgg nañ ma wàllu yaankat yi bëgg nañ ma tubaarkàlla macha allah bu ma duggee ci géew dañ may yuuxul ba keroog may des xëy na mënuma waaye bëggal nañ ma seen bopp te yàlla tax d'accord Euh, sa diggante ak sa groupe nan ngay liggéeyee ak ñi nga xam ne ñooñu ngay àndal di woy ndax nag buñ nee woy làmb Selbé moom mooy capitaine bi Selbé mooy général bi mooy la présidente Dëgg la.
mais nag am na ñooy àndal ñoo xam ne euh, si wàllu làmb aussi euh, yàgg ngeen si Euh, ñooñu est-ce que mën nga see ñëw sa diggante ak ñoom waaw ñi may àndal macha allah ñoom lu ma mën rek ñoom ñoo tax ndax su ma toogoon ca géew ga man kese di woy yaakaar naa du neex xëy na nag ñi la bëgg loo wax dina leen neex waaye nag woy mënta nekk kenn ba tax na ñi may àndal li ma mun rek ñoom la maa ngi ànd ak ñoom Ndeye Khady Faye ñoom Tening Sarr ñoom Seynabou Ndong ñoom Ami Diouf yenn saa yi ñoom Koura ñëw gars yi daal dañ may jàppale su xatee ba xat gars yëpp jóge fee ñëw jàppale si ma maam nag koo xam ne suma genn wàll suma xarit la sama doomu ndey la muy Fama Cooro kooku su ma amee làmb fu lu mu sori sori mu dem ma amaat nag koo xamante ni kooku bañ naa ko ba dañ ñoo boole woy muy Adama Ndour Gànjaay kooku fu ma am làmb bu amul jot sax yeb- yebal élément mu ñëw jàppale si ma kon bëgg nit foofu la yem
dafa mel ni yéen li jot ñi nga xam mooy woykat yi séeréer yi si yeneen fànn bi yéen yéen làmb ji itam am na si yéen am na ñoo xam ne du ngeen laalante si woykat yi.
ah déedéet ah bon man de awma frontière ak woykat yi day faatu Adama Jali bu ma soxlaa daf may woo ma dem woyal ko làmbam ba mu jeex ma ñibbisi mu def ak man lu rafet fayam mbooj bu ma soxlaa daf may woo fekk aw ma ma dem woyal ko woyla ko làmbam mu def ak man lu rafet ma ñibbisi woykat yi làmb yëpp aw ma ak ñoom xaar ma yàlla mbayang luum sama doom nijaay la kooku daf may solal muy sama doomu nijaay moom tamit barkalla macha allah aw maag moom xaar ma yàlla bu amee làmb it bu ma woowee damay dem woy la ko ndaxte ñun ñëpp ñoo bokk gis nga ñun artistes yi woykati làmb yi ñoo bokk ndey ñoo bokk baay man de awma ci kenn xaar ma yàlla man Selbé sama baat ni photo amu ci kenn kuy taxaw doon woykat nga ne man am naa xaar ma yàlla ak Selbé amut déedéet d'accord Selbé ñu ñëw si li nga xam ne moom mooy euh, làmb ji ndax booy woy léeg-léeg est-ce que Selbé si boppam du am mbër moo xam ne Selbé daf koy bëggal boppam comme ni ko mbër mi di koy bëggee maanaam euh, léeg-léeg ñu daane ko wala ñu daan ko mu kontaan bu baax a baax est-ce que naan di duy am léeg-léeg si làmb ji aussi.
waaw man nag mbër yépp a ma bëgg moo tax aw ma mbër ndax li tax ñépp a ma booloo bëgg su ma bëggee tànn ne kii laa bëgg rek day indi erreur ñépp laa bëgg ndax ñépp a ma bëgg aw ma ak benn mbër xaar ma yàlla mbër yi ma xam yépp amu ci kenn koo xamante ne su ma la gisee duma bëgg
est-ce que léeg-léeg fi nga nekk di woy aussi da ngay gis ñu dem final wala demi final nga gis ne du ñu bëre bëre yenn bëre yi est-ce que léeg-léeg euh, woy yi ngay woy du leen du leen pikiir ba ñoom ñu gën a bëre euh, gën a mun a def yëfi góor dëgg.
waaw bu ñu yenn saay na dañuy toll ci final gars yi di bëri di bëri final bi yàgg lool soo ko defee ñu daal di delsi ci cosaani maam yi di Xadi Juuf doon woy di ñu jàngaloon bu làng daare soo ko defee ñu daal di yëkkati e sadrere pirke sadrera sadire ange waaye e sadrere pirke sadrera sadire ange waaye soo ko defee dañuy doon ay gaynde ci saa si combat bi daal di jeex loolu dinañuy may doole lool ci côté boobu day fekk dañuy woy ba sonn te final bi du jeex
maanaam yéen sax yéen ay gën a yàkkam ci final bi jeex gën a mbër yi.
waaw ndax ñun ñooy jiitu mbër yi ci arène bi Ah.
boo seetee làmb bu waree jeex une heure wala deux heures wala trois heures nga dugg huit heures arène di woy huit heures ba une heure ba deux heures ba quatre heures kon da ngay da ngay demati ba làmb ji da nga ciy doyal sëkk ok mais ñu ñëw si li nga xam ne moom mooy euh, bugguma nga wax kase bi sax mais nga foog ne gars yi liñ leen di fay ak euh, yéen li ngeen di daj ci làmb bi est-ce que euh, fay nañ leen euh, liñ leen war a fay dëgg-dëgg.
déedéet fayuñ ñu sax li ñu war a fay dëgg dëgg dëgg dëgg fayuñ ñu ko ndax da ngay gis mbër ñëw léegi gagné ay millions dem ñibbi nga gis mbër ñëw léegi gagné gagné ay 500000 dem ñibbi waaye ñun mënuñoo am kase 500000 duñ ko jege sax kon tëggkati làmb yi promoteurs yi war nañu jàppale bu baax a baax a baax a baax village yi tëgg jàppale ñu te xam ne woy dafa métti te booy dem da ngay ànd ak ay nit te booy ñibbi dara nga leen ay jox kon ñu ñuy jàppale te yàlla rek tax yokkal ñu kase yi di ñu jox euh, lekk bu normal di ñu jox tëdduwaay bu baax ndax ñun tamit dañuy ànd ak ay jàmbur yàlla ñu bàyyi seeni kër ànd ak ñun kon dañu war di teral wax dëgg yàlla man daal kase bi moom jooy nañ ko torop woykat yëpp a ko jooy nag ki wax ak ki waxul ñëpp ñëpp a ko jooy kase bi maanaam daal liñ leen di fay daal dafa xaw a tuuti daal.
tuuti na torop tuuti na torop déggoo ma ne la mbër day yegg si léegi gagné un million dem ñibbi wala cinq cent mille dem ñibbi te ñun mënuñu ko am kon ñun ñi nga xamante ne ñooy promoteurs yi ak ñiy tëgg ci village yi communes yi nañ ñu jàppale te yàlla rek tax yokkal ñu kase yi
d'accord euh, lambu arène wëy ko ak wëy si dëkk dëkkaan yi nii euh, ban moo gën a yomb ak ban moo gën a neex làmbu arène woy làmbu arène ak woy dëkk dëkkaat yi mun nga dem ci arène bi do- te du mel ni dëkk dëkkaat yi gis nga dañu naan dëkk dëkkaat yi waaye léeg-léeg nga dem ci dëkk yi ci commune bi Hmm.
macha allah da ngay da ngay am lu baax lekk lu baax te def fu baax ñu may la xaalis ba nga kontaan di nga gis sax ku dem arène lañ la may ca géegoo ga ñun duñ la ko may ah bon waaw day am moo tax arène yi ak commune yi village yi lépp benn la mais ci Selbé tey man bu ma nekkee ne dama nekk un promoteur euh, di tëgg comme si arena wala feneen ah ma ñëw di lay engagé am keneen koo xam ne daf la bugg a engagé pour Passy wala Sokone wala wala wala wala Nioro wala feneen ak feneen ak feneen mais ki la engagé à à Dakar arena moom ngay jël déedéet ajowul loola ndax tey ki ma engagé Dakar Arena bu ma fayoon tey maanaam dama koo xayma rek waxuma ne loolu la may fay bu ma fayoon tey cent mille kii nekk fii fay ma cent mille man damay yem ci ki nekk fii ndax xam nga lu tax lu tax Arena tour la mais liñ fay am ñu ngi koy am fii kon kii bu ma fayee cent mille ka ca Arena ba fay ma cent mille dinaa dem ci ki nekk fii benn di nga paas dem Dakar paas del si te ci ci loolu cent mille yooyu ñu lay fay ci Mais ngay génn sa fee- fee- paas fee la sa promo ëpp parce que fee télé yi dinañ ñëw nit ñi dinañ ñëw promoteurs yi té- télé yeeg rajo yëpp publicité ne Selbé moo koy wéy waaw loolu am na waaye léegi site yi daa tax kenn réeratut ah bon site yi tax na kenn réeratut site yi ñu ngi lay jël saa su ne kon ñu ngi gërëm borom site yi tamit foofu tam dinañ fa yegg borom site yi ñu ngi leen ay gërëm ñu ngi ñuy jàppale bu baax du ñu defal promotion ndax am na ñoo xam ne xam nañ ñu ci site yi lañ ñu xamee mu ne mosuñoo jàkkaarloog ñun kon borom site yi tamit ñu ngi leen ay ñaanal.
D'accord.
C'est- Alors, c'est euh, ci gën a Selbé barkeel.
Selbé tournée yi ngay def yëpp est-ce que da ngay am benn laps de temps benn moment boo xam ne Selbé nag day toog reposer bañ a dem fenn wala Selbé moom xaalis bu bu ñëwee rek départ na.
déedéet ndax démb ba léegi maa ngi fi démb ba léegi maa ngi fi di noppalu ndax tey tamit liggéey bi neex na lool waaye wér gi yaram bi ci la bokk te soo toppee liggéey bi dina am bés boo xamante ne di nga bëgg a liggéey mu te la moo tax nag balaa yaram yi noppalu nga noppal ko tuuti demaat liggéey daw dem ñëw dëgg la li ñuy liggéey loolu lañ yaakaar ci lañ yor suñ ndey yi yor ci suñ doom yi njaboot gi yëpp ci lañ yaakaar waaye nag léeg-léeg nga sonn noppale ko ñaari fan dawaat dem uti.
D'accord. Selbé ñu ñëw si li nga xam ne moom mooy euh, démb ñëw nga si woy cosaan da nga koy indi toujours euh, ndax léeg-léeg doy am lu la métti trop ñi nga xam ne dañuy soog a door di jël yenn woy yi di koy woy nañ koy woyee maanaam baaxul wala nekkul ka nga xam ne ka ko euh, f- fentoon nam ko doon woyee woyee duñ ko maanaam loolu aussi léeg-léeg est-ce que du la métti léeg-léeg
waa di jëm ak léeg-léeg nga dégg nag ñuy woy woy dina la beenu trop daf lay benn daf lay beenu ndax nañ ko fente woon ak nañ koy woyee du bokk waaye nag comme munoo ku samp ci géew rek woy nga topp ko ne ko du noonu danga leen ay bàyyi rek ñu woy li nga xamante ne moo dal seen xel waaye nag léeg-léeg nga dégg ko mu beenu la lool
d'accord alors euh, mbokk yi ñuy seetaan ak ñi ñuy déglu ci séeréer rajo euh, séeréer la su su sant euh, artiste bi ngeen jàkkaarloo nag mu nekk euh, Selbé Diouf ñu gën koo xamee ci euh, Selbé Djilor mu nekk ab woykat yi làmb boo xam ne dégg ngeen fi mu jaar euh, ci wàllu wëy waaye itam dégg ngeen yi nga xam ne tey yëkkati na ko Makayre Ndiaye invité ko ci émission bi nga xam ne mooy Crinel nga ne euh, ci euh, séeréer rajo samedi bu jot nag ñu koy amal Euh, tey Selbé ñu ñëw si li nga xam ne ba léegi moom mooy làmb ndax euh, boo toogee fàttaliku ay ñoom maam jambaan ay euh, Aliou Diouf Yerwaago ak keneen ak keneen ak keneen euh, ñi nga xam ne euh, amoon nga sens gis nañ doon bëree ak cosaan yañ doon indi ak tey mbëri tey yii nii nii est-ce que euh, jotul ñu bàyyiwaat xel bu baax a baax mbër yi yu yu njëkk yàlla lañ nañ doon def euh, di wane cosaan bi waaye di bëre ak fulla ak fayda dëgg la loolu moom manqué nañu cosaan manqué nañu trop mbëri buñ doon dem dañ doon ngemb ngemb bu rafet sol seen série soro yu ñuul yooyu def ci ay pétaaw def ci ay seetu ba pare yor seen laar yor seen jala di yëngal mais loolu amatul léegi mbër yi kilote lañuy duggee walla blouson te loolu yëpp ci cosaan bi la bokkoon waaye presque mën nañu wax ne dàq nañ ko ndax ñoom Aliou Diouf ñoom Maam Jambaan ñoom añ su fay bu Sokone ñoom Dudiya Njéeme euh, Baba Dudu Ndong bii bu bu Sadio ga ñoo ñëpp fekkante nañ ak ñoom ci làmb yi seetaanal nañ leen ñoom alaaji fiin seetaanal nañ leen léegi boobu ñu nekk ay xale yu ndaw waaye ñu doon gis ñuy def cosaan lool waaye cosaan boobu manqué nañu léegi ci làmb ji torop ndax mbër yi indeetuñu cosaan léegi daal mbër yi maanaam xaalis la ñuy utsi waaye du cosaan a tax ñu ñëw ci làmb ji
est-ce que Selbé tey wàllu làmb ji da ngay rëccu li nga si duggee woon wala rëccu woo li nga duggee woon si wëy
déedéet rëccuwuma ko ndax li tax rëccuwuma ko maa ngi ciy sant yàlla maa ngi ciy sant yàlla jënd naa ci kër barkalla tabax naa ko ba mu raase yeggagul nag ndax xëddaguma ko te kër boo ko xëddagul rek yeggagul waaye tabax naa ko nag ba mu raase jënd naa ci sama ensemble yi néeg kon maa ngi ciy sant yàlla maa ngi ciy faj yeneen aajo waaye amagoo oto kon sant yàlla oto moom maa ngi koy ñaan fan ne la fan si jox oto maa ngi koy ñaan fan si di ko ñaan Tamsir Diouf sama càmmiñu bopp boobu bëgg naa oto bu may doxee nag fan si nañ ci jàpp ah borom kër gi tam na ci jàpp Tamsir Diouf na ci jàpp ku ma ku ne bu ma tuflee rek dinaa tooy te kon dinaa am oto alors ñi ñëw xam nga boo gisee ñi ñëw foofu noonu parce que déplacement bi def si am solo fi ngay dem dafa bëri ngay dugg yenn oto yi wala sareet yeeg yooyu yooyu Selbé dafa war a am oto dëgg la damaa war a am oto ndax eh, jamono yi nit ñi nekkee ci grève bu ma fekk may woyi kuppantu keroog ba may woyi kuppantu am naa jafe-jafe trop ndax Djilor Kaolack juróomi téeméer laa ko fay maag ñi ma àndal yëpp ñun ñëpp juróomi téeméer lañ fay ñu yegg Kaolack fay junni ak juróomi téeméer ngeen fay Kaolack Djilor léegi si si yoon ñaata ngeen waroon a fay ñu waroon a fay ñetti téeméer ah si yoon ñetti téeméer léegi ñoom ñu teg si ñaar téeméer su fekkee minicar yi ñu fay ñu fay ñaar téeméer ok ñu fay juróomi téeméer wàcc Kaolack fay junneeg juróom ku nekk junneeg juróom doog a wàcc kuppantu temps yi grève oto yi kon suñu jàppale ñu am suñu oto bopp bu liggéey jotatee ñu mën a liggéey te duñu am jafe-jafe ndax boo ca- boo calculer loolu ñu paase xejul ci essence xejul ci alors Selbé ñu ñëw si wëy bu ngeen doon wëy te amul tëgg dew ma du saf waaye dina des est-ce que léeg-léeg euh, Selbé euh, maanaam da nga mën a wëy lool te boo amul tëggkat yu la comprendre aussi sa lamb ja mën na bañ a neex wala Selbé amul problème boobu.
waa di jëm ak man awma problème boobu man tëggkat buñ ma boole rek ma ànd ak moom awma problème boobu ñi may ñi may tasal ci làmb yi képp ku ma tasal ngay tëggkat su ma paree da nga balaa may yegsi ci yow sax di nga jóg ñoo fekk si ma ne ma kontaan naa yaa ma yóbbu ma ne ko maa la yaa ma yóbbu su ma ne yaa ma yóbbu ma ne ko yaa ma yóbbu ndax yaa tëgg lu neex moo tax ma mën a woy li ma woy ba nit ñi dégg ko man awma problème boobu kuñ ma jox rek ma jël ndax dañ koo fay indi ko fay ma indi ma kon naa liggéey sama liggéey mu rafet moom tam mu liggéey liggéeyam mu rafet waaw man loolu laa gis d'accord alors Selbé ñu ñëw si li nga xam ne ah surprise la peut-être ñenn ñi xam nañ ko waaye ñenn ñi xamuñu ko Serer Héritage defoon benn casting euh, si Sénégal ak Gambie yàlla def euh, nga bokkoon si woykat yi nga xam ne euh, dañ doon woy làmb ñëwoon bokk ñi si doon jongante yàlla def tey si département bu Foundiougne yow kese yaa si génn au niveau national tey yow yaa war a woy li nga xam ne moom mooy morceau bi nga xam ne fukki morceau yi ak ñaari Selbé yaa war a woy woy wi nga xam ne woy cosaan la si làmb rendre hommage ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon démb yëngatu si wàllu làmb loolu nan la lay def Sénégal yëpp département Foundiougne yow kese nga génn génn tey jii nii war a woy loolu mu génn pour tasaaroo si biir Sénégal waa di jëm ak may santaat yàlla bu baax di sant sama ñaari waajur waaye di sant euh, waa waa rajo bi ak borom kër gi ndax yéen bu ñu munee génn ba nit ñi xàmme ñu ràññee ñu yéen la kon yéen ak seen staff yépp mu leen ay sant di leen ñaanal kontaan naa ci torop ndax li tax yéen yéen a ñu wone ndax yàgg nañ fi te loolu amut séeréer yi dañoo xawoon a diig kon tey bu ñu feeñee yéen a ñu feeñal suñu gaal gi diigoon na ba pare yéen a ko joow ba mu génn kon yéen dañ leen ay ñaanal gudd fan ak wér di ñaanal borom kër gi yokkute ak gudd fan ak wér ak képp ku bokk ci séeréer rajo groupe ñu ngi koy ñaanal jàmm te di ko sàkku ci moom kontaan bu baax rek.
alors Selbé fi ñuy jeexale war a dugg ci partie séeréer bi yéen artistes yi séeréer rajo dimbale na leen ba ngeen nekk benn ba def benn association bu ñuy woowee Onano Fenu Simon Sène nekk seen président loolu aussi en tant que artiste ngeen booloo nekk benn est-ce que am na lu leen di may dina leen may doole wala.
waa loolu daf ñuy may doole ndax ànd bu nekk rek. war nañoo am fu ñu sukkandiku ba mun a dem te suñu defuloon nanu felu xëy na ni ñu war a déggoo yi duñ ko déggoo waaye nanu felu bi macha allah jàppale nañu bu baax a baax a baax ñun ñëpp ñu ngi déggante ñi mës a gise ñu ngi déggante ñi mës a gise ñu ngi gën a yokk a gise kon sant yàlla la ndax gëm naa ne jàppale nañu ndax ba tey fii ma toog di wax ak yow nii tey damaa xëy di wax ak Mari Ngoné te Mari Ngoné yaakaar naa ba ñu dëkkee parcelle laa ko gëj a gis te boobu xamante wuñu woon sax ñoo dëkkoon benn koñ waaye xamante wuñu woon daf ma doon romb ma koy romb te nanu felu bi tax na ak séeréer rajo bi tax na ñu gën a xamante gën a miinante ba tey ci suba rek lañ mujjee déggante téléphone kon alhamdulilah rabbi alamin ñu santaat ci yàlla suñu borom bi bu baax.
d'accord alors Selbé yaa ngi préparé bu baax a baax say projet. am na lamb yooyu préparé sa fans club ak lu munta doon mën nga ko wax ñi nga xam ne ñu ngay seetaan si lan ngay préparé moment bi nii waa di jëm akay ree ñu ngi préparé bu baax sax ndax sama fans club fans club Selbé Djilor Selbé Sinig Selbé Mbey ñoom ñooy tëgg si le 11 mars fii ci Djilor may woo ñëpp nag waaye di sant tamit waa fans club bi ndax maa la bëgg kat maa la raw mënu koo fay te dañ maa bëgg moo tax ñu ubbil ma fan si këram ba mu jaral leen ñuy tëgg si làmb fii ci Djilor ne ma duñ ko njëkk a tëggee fenn sa dëkk lañ koy njëkk a tëggee ñépp xam ne bëgg nañ la sopp nañ la te ñu ngi ànd ak yow saa su ne kon nag maa ngi ciy kontaan bu baax waaye di woo ñépp nag bàyyiwuma kenn képp koo xamante ne yaa ngi naan kaamee wala dama ne rek maa ngi lay woo ci bis boobu nga ñëw fekke lañu jàppale ñu ba bés bi gën a rafet taaral ko ba mu taaru alors Selbé démb ñu nekkoon ci programme yi Latir Faye Ngourane muy nuit africaine pantissé séeréer rajo demoon pour jàppale ko gis nga ko ci guddi gi lañu xëy bàyyi yëpp déplacé wu ñëw fii nii pour def ak yow émission noo gisee acte yi nii nga xam ne séeréer rajo mu ngi koy def ba ñëw fekk ci la sa kër fekk ci la sa kër famille fekk si la sa dëkk ngir waxtaan ak yow bu defee nit ñi mën a jëriñu bu baax a baax xam dëgg dëgg dëgg kan mooy Selbé Djilor noo gisee li nga xam ne rajo baa ngi koy def.
kontaan ci yéen rek di kontaan ci borom kër gi comme ni ma ko waxee sànq xol bu sedd rek laa am tey sama xol dafa sedd ba li ma war a wax yëpp mënu ma ko wax sax ndaxte comme ni ma ko waxee sànq rek ñun dañoo réeroon suñ gaal dafa diigoon yéen ñu génne. ndax yéen a jow gàll bi ba mu génn ndax yéen a ngi fanaan ci programme soutenir borom programme bi jàppale ko ci bésam taaral ko ba mu taaru ngeen wëlbati ko xëyaat dugg oto ñëw fekk si ma ñëw di ma defal defal émission taaral ko ba mu taaru ñëpp jëriñoo ko kon aw ma lu du sant leen gërëm leen ñaanal leen yàlla suñu borom bi nga xamante ne ku mu yokku nga yokk maa ngi leen ñaanal yàlla yokku leen ba ngeen yëg ko waaye maa ngi leen ñaanal kër gi yàlla gën koo dëgëral gën koo taxawal ba mu sut suñu njort.
jërëgeen jëf mbokk yi ñu dem ci version séeréer alors Selbé Djilor xaye wara fo kenarin ñu émission kirinel ngal ne na séeréer radio séeréer ressource sente i ngar meek andoona ye ten refu Djilor a mbey Djilor a sinig ndaa itam i soɓiida Selbé Djilor Selbé Diouf Selbé Linguère Uh, serbe wiyanonayi ambe setanango annan gilo xango no radio le aussi uh, xarolay ka den an refu serbe
e dije mak mexey joka fopa njal xirooxa fop no weno radio le fu auditeur ke fu auditrice ke wena nangilooxa fop mi selbe jilor selbe lingeer mexey simna fop waasnoxa fop xaq to wasanta yi tamit to leyonge jega moɗayo maak xaye ye garona mek pour lamit an ref selbe
alors serbe i ndok teen lay in an ref serbe tan ref cosaanum fu serbe keek andoona yee axey yo'nooxan te ref njom a gimaam a kim njom a kim cosaan tama commencé tun xa taxu te ref teen i dije mak mi koy mexeri mi ngel na yer waago yaroox na jiloor mbineek soɓa xamoona men yarooxum men maaktum bokke jeg ma soɓaam men gidma yaaloxe paaxi tamit gidma waajur ke góor waajur tew ke fop mexe gidma den yaam gannaaw roog fadidangaam i xayre den taxu na barke den fu yéene den fu calel ke ten fadnooridaxama mi fadaxam mi faduma xaye
d'accord serbe yi xame koom na kim ka o lamin wala bugaano ye rek o fiyan
i dije mag i eskate gimegu yaga i esa gimeg na koy yaga a kimo njub jegu a kimo ngaajo ten jegu o bali sereer kaga ten jegu yesa gimegu bo a ndet ange sax dele mbuud ne waage fel yaam ngare bugin lool koy refan jamano kaga a miña lool yaam yaga luy jen fay retegun programme ke lu jeen fay fa leen i yaga, RTS.
yaga luy jen fay ten garegu meek ku xew ina meek luy jen fay garegu bo i ndetata bo musa bo bina ngara nda bugin lool nu xeeñes to roog rek a tax bug naga koy ten maaduna mit bo xaye ten ñoowa
d'accord alors euh, a kim serbe te ref a kim njom tam fu tam an jangnong a kim an fa an ɓeeroona xa ɓay den bo xaye mo gimoona de laye o ki gimo xa gima a gima cosaan to kar machallah waaga ino lay rek we andoona yee ɓeerana xa ɓay den
i dije mag ɓeeraam no ɓay xadi juuf o xaaga te faax a yaaje a sat ɓasil a muñ o korma faax a sat ɓasil bo nekk te wondoxna xayne xeɗanan yaasamax ke ƴuma a ɓut te xipe itna ajanay firdaw sifa to malaka yermande dalalin a xadi juuf i njege ndab dum képp xuna gima njom rek ɓeerno ɓay xadi juuf jegiro ndab dum ka i xeɗanan ma te wondoxna a ref me moƴanuna
d'accord alors euh, a ndeer fa Khady Diouf est ce que waaga teeno gar no ke andoona yee nete ñoowit teegina fa nuun yaam yoona fo ten a jangnang mayu jangaano ten mayu waaga ino lay an ref o Khady Diouf
iyo xadi jofo kino ñak o caaxaan no calelum a bugin lool a fonkin xadi jufart angano lang andate dara fek njom na tase nu ngimik anga tamit xadi juf o nanga jaxasingom sax te leyonge inoxi o jalidiro we jalidna fadamo fo fe jalidirna o ret moof manam ma banga ka mbagitna yaam yaga a sesa keng jeg e banga traverse jegu ma bangala fagitna maga o moof ka bo njom na tas o moɗanga tangalit naga o fi'ka yaam ka te jeg u fulanu ke te jala bo bug e xa ñakna ten fayda no kaga a ñoowegu kaga jangnu in kaga lalu in ten i ñoowa bo meek i mofna
d'accord alors euh, na cangna laaga Khady Diouf nama ferteegu a, a, a, a kimum ka te xesoogu rek a laya nu ne neek i ngimit ka wala nam nam nam Khady Diouf daal a ferteegu a kimum bo nu yoona ten ngima fo ten a xati an e ken xati no langa fertegu xati mete mofna ndiki ndiki no langola waga fera kima mayu mayu mayu kamo langole xati no langa fertegu nda a ferangay toga yala ci a wena yona fo ten fop a yifa yaaju bo xati feranga no langole nu njabani no langole e ndem sela ya fatu ke ya sam malaka yermande dalalin Oui.
a xa kiƴuma ɓut lool te ni tamit te waagu bax lool a nana u xadi a jaɓana in init wende ina xa teɓ a ciñ den nda ten jaɓanegu xadi Diouf a jaɓanangiran sene bo ndonga jaɓanin bo pala ke fa njay bay falen ada fayina jaɓana tan nda waxde i jege teen reccude ɗum ke khady diouf a jangina in ndi cuiran yam ten i ɓisa bo mek i moof na leya fo
est ce que bo ndiik a kimum nanga moofa no lang jima bo temi o xotna kimum pour waago lale wexe wetan waxa khady diouf
mi a kim khady diouf a kima cosana ke tigi meg na ten wetta njom tene wettan jom tan wetta njom rokangano njom cosaan gi ma cosaan gi ma bo njom ne xaaj kima kima xaso ndik dakku ne cosaan bo ya njom ne a baat ka yoko ndik gar na xasa ke o ndik baato dakku ne cosaan wegtin njom ne ninagam fitta D'accord. alors euh, selwe i ngarno toujours khady diouf ɓerano ten fa an fa an wa ando naye ɓeran ɓay den bo xaye o waago moof meek koy sereer radio sereer a susu a intéressé o nawo a gara introser ino
i dije mag ɓeram no te waxana leel ke caw agen sexe la i xat mana xadi juuf yete roga janguna ke caw fa gen na sexe la ten yoon tegum ten itamit te faax loola yaac ten yoon tegum yonam fo ten xakkit xaɗaq i xat mano ten koy sogum warit mena fa njaay bay faal fa njaay kate garigo ala ke caw i banama selbe te dimle kam o jegange njum fiyan fiyan bo yonat meno yo adapté at meno ten farat ma yonata fa njaay bay faal bon te tat koy bo wiin wen bugatam lool a engagé ata xam ton ande engagement ken jega fu wete jega wagin mo fokat to fek mi xe yona foten wa kimo gimik ke jego duma ken taxon sipatat xoxes
alors ye xatorana fat ndiaye bay falo si patatof euh, to anda ye a kim moom yooɓe selbe a gar koy ndiiki a ref oxa and naye ten refu capitaine fe a ref euh, présidente fe mal ne daal no ɓayi maak a refu xaye euh, nam programme to wala organiser to groupe of we o yoonta partout e wem yonta roga taxa koy groupe le yajafule lool nda wem yonta roga yalla dimla in i nanora i njege xaarma yalla mu layma kiine fodi me ket maaga o fod ka wax deg a latale fel lool a fel lool yona faxano ina teneng sar ande xadi fay seyne bu ndong ami diouf yen sayit kurayina ngar waga doom de yesa def waga fop a ngara yi roqi jon in fop lek lek de ngar gowe daal a ngara yi moom machallah wax deg yàlla fiqanga de ngara ndimle idam rawatina koy faama coor xaaga kam layanu ne refe xaar tes o pog yaaye so xaaga i mboga mboga yaay ka gar fote ngaarit yaam ka temin xaqit xarɓa ɗik fa qit beta ɗak i yoonu mi fo ten kon ka gar fote ngaarit mbog yaay refatu roga fokatam koy fa adama nduur te ref yàlla ɗatagin ganjaay adama nduur machallah a i nanoor lool te bugaam lool koy a ngorum ke bugaam ngoy kiram gone sax mais adama ndour a jega kiimalaate a feran onga de leya ndigil a kiimalaaga est ce que waaga teeno gara ndik waaw waagaam teeno gar aja selbe juufoyaal jilore adama ndur ngor ma wage rabdele fati ande arfane na ñaajtaye selbe juufoyaal jilore adama ndur ngor ma wage rabdele fati ande arfane na ñaajtaye selbe juufoyaal jilore adama ndur ngor ma wage rabdele fati ande arfane na ñaajtaye kino paax alors o ki gim o kenof a gimanongo ten wo selbe layino ye gari gimanam te gimanongo ten euh, journal te gimanongo ten xa yegomi cerof
ah dije maka comme cesa ƴufa torop cesa ƴufa kami sabuta lolam sax
nda Yaam.
kiino kiino ngoox yam kiino kimalik xaalis itam ci anum xa- ci ay xaga wagen moña ko ci xaalis yam kami sabuta butno ten ndeysaan e kami sabuta butno ten yam kati gram surprise te buganam xoxum koy to roga tax jeganga programme a jegange xana banam élément xana gara a jeganga xana fexe ba banam élément a yoq fu yoqna kon xaga alhamdulillah rabbil alamin xidanan rek te yokox ba yegen yasamter bo groupe um le alimel ay fanweeri nit a jof mbamel mais mais mais selbe mi foog ame nuno gigim we nu nu njofoore nu nange matra nu- yufrayikam nun nono we annay nangi ma cobde par ce que ɗiga jegimo annay noon nangi nuqraku e aa miɗe fogimta mi moom gigim we jegim ten fo ken xaarma yàlla wenangima jom fop selbe jegi fo den xaarma yàlla ndey faatu adama jal say nu te soxla ama xooyam téléphone sum jegim jom xan ret kim tin bote mbosum gat mbindes te fi fabi bo suyit koy codam xaalis fa mayu faya mbooj naaga adama nur la yaxonga nderes foten xaga moom layatan mbayang lum la yaxonge o maas reso xaga ita xooyangam ret wax dëgg yàlla tubaarkala dara farje fa njaay bay faal ah ni moom jegim xarma yàlla fu gigim we ah yàlla datake jegim fa den xarma yàlla rawatina koy we andona ye den def élément ke alors selbe i ngarno ke andona ye ten refu o a refanga ye ka o gima wara sutana xooxof a kim xooxof nda wara xota a kim cosaan comme ne laytona ndax selbe manam a kima ke andona ye axe fera den selbe wondo xay bo o yeng a ndeero yeng wiin we ɗana selbe yifuma ref na kima leng te a inoox a bindin wala a fi teen leng wala selbe a xesanga daal ba a ñaktoox bo fude may tep a yer foof um wala yer foof foɓu tena jegita inspiration est ce que waga teno gara fa in lay innamo jegta inspiration a i de wagam teno gara paax mi kam rokano lang gima fera kima mayu nda kan won wayit bo yeng i sar na kim jango portable fin audio roga fe dangan nan giloxen yam kamo dana soɓa xam fiyangan fiyangan audio rek ɓato wondu roga fe dangan nan giloxen xesanga yit bo moof nu yokkle yife sa waga gar na kim gimin i mi kam fera de kam fera jega kima mayu gigim we ngiman sa ande yoxe feruna to mi feek moof na leya fo mi ferun
mais est ce que fade aussi tam o laya dene wo feru wala wo itam yaam ka gimego a kimno kiin rek a xaƴ ka den dene itam le continuer jimano i anda comme kam soɓmin a kima ken maam ke xadi jufa giman bo i ngar soɓin men fu wete ferood na i ngimayo xadi ferna bo i mbirana qoox in e jare o- o leya ye mi feru keek mi feru keek i a refanga comme invitation comme neek xaye waga leye mi feru kima leek mais a jolangan jariran yaam ka a kima ke i ngima fop i mbiriran ken taxu d' accord o layanga jom o lay ke andoona yee ten refu tikoorit ke andoona yee kaano yoona ten ka te roka kam jom te ref kel fa ke andoona yee a saqayo xam-xam a mbi'anango teex ka andoona yee xana waagongo o damit xana waagongo cooɗ yoqe i njaak ar o soome pir ke soom mbaryo mbi' neen wala nuun o gigim we itam leg leg ga'aam nu saqa façon teex ku ga'oona koy nuun o laagole iyo kaga moom ndigilo waage ñak yaam koy kaga aar fe lamtu a lamta o ɓogoox a lamta o xumoox yaam mboolo ka te jeg doole kaga taxu i ɓog wa ngum wa aar qoox in aar we i yoonit na bo ndet na jam ngat na jam to i njeg ke jafe jafe leŋ ken waralu D'accord. Alors, euh, est-ce que léeg-léeg selbe naa nga refaanu lang ak gima gima gima gima gima gima boo mbir leen wala fans leen ay yéen yasi wala a gara yéen tookum yaam ak kima pelu ke andoona yee axee giman ceeb ke sum lool
e a jegay a jegay leeg-leeg o ret no lang kiina buganongo xooxum no xeeñum o gima te gara fecca bo yaate yen ka tokof yama mosa daawo kiin te fecca ba yen tokes ba ɓeer maaga yen yasi bo fuudate jomna jegat ka loma xama lool yaam bugaam rek ten waralu kaaga fop kaaga jegay d'accord selbe xaye na paanale région de Fatick département de Foundiougne o fog unu casting leng na andoona yee kaa de njileegu oxa andoona yee na kim jom wala kim cosaan o fog unu we ngeenoox ina teen a yo'nooxo teen bo roog a ciyong xaye na département fe Foundiougne wo soom wo sutooxu teen ndaa itam na Sénégal wo sutooxu teen pour o war o gim koy no album ne na gara andoona yee jega ye o morceau xooxof la andoona yee wona gim kaa cosaan ne no njom xaye o kaaga nam ñoowtanoo fo séeréer héritage fe andoona yee aatiida sereer héritage kam leya nuun e ka i ngidma nuun mi selbe di kam ngidma nuun a paax yaam kam leya nuun e suk in a rok ano maaga suux a ba pare na nuun o taxu suk neen a ɓaato xumb bo wiin we mbaago ndok teen yaam ke nu mbiyan na in jeg jege fen i ndef a meek to leŋ ande in ha sereer héritage sereer radio groupe in taxu wiin we anda in to i miñana aar fe kon ino ka i ngeɗana nuun nuun fo yaal mbi nuun roog o yaal a miñana nuun meen a yoko radio le bo te ref xa télé xa mayu e site fe andoona yee ten ref site nene andoona yee ten na tourner a fop fop a nga'a ker nan saax le in way ngeɗana nuun te ref site mayu mbaamir yaam wax deg i njega o ɗaayo maak na nuun ino sereer ke artiste sereer ke goor we fo rew we wena ngitara wena ngima folklore wena ngima com fop ngidmu nuun a njoka nuun a njal a mosanloxa calel nuun D'accord. Selbe, ricoxa ke ref ona o kiijin surtout nu njomne wala rifino.
ricooxinum kaaga moom kaam jeg taaga o ɗaayo maak yaam njom neek gima a gisatoxam teen bo jeg teen mbind gisatoxam teen bo tabax bo te raser bo te yoq bom gisatoxam teen bo jeg ensemble a ndok ɗaxa teen soxla xoxis kon alhamdulillah rabbil alamin wax deg ricooxinum
D'accord. Selbe, ndax a jega a auto laa te déplacer waxta yaam koy waagiro mu xooyte one rek o rek invitation ke fans ke to selbe moom a ref meen a passa rek bo man.
waaw wax dëgg kaaga de moom soxla anum soxla anum pote fad na lool yaam koy i mbara mbaro njega auto ke i ñaaƴa ten mayu a trance ke goɗ ndaa me i xeɗan no fans ke fo xarit ke fog yaay we am si jàmm ke fo yaal mbine Tamsir Diouf kiino kiina doxoñangaam rek inchallah xan waago jega auto yaam i tolooramek jamono ye auto ke ngerewna i ndeta kopantu jiloor kawlax xu refna juróomi téeméer a paasun to i ndeɗo wiin naxuk i ɓaato mbad kawlax xu refna paas junneeg juróom i ndef wiin naxuk sogo mbad kupantu kon a ɗoma to i njeg anga auto kaaga fo i mbokat angaan xeƴeena essence kon koy maxey yoɗa fop o ɓay leya nuun ne nu ndimla in no artiste ke a i njeg xa auto xa i ñaaƴta surtout selbe jiloor selbe sinig selbe mbey selbe linguère alors euh, selbe xaye roog a fiya i déplacer oox ngar meek oko i ndef unu programme latir fay nguran ne no xiido xasole o ref premier artiste fa xotena no émission ne euh, ban sentiment jego xaye
xaƴa jegoɗayo maak na nuun nda balam laya dara ñanana latir fay nguran ne besum nen yasamte malin kute jegna ta yasamte barke nda jegoɗayo maak xaye yaam na coono nu mbe'u yaam xu feɗna janga programme bo roga feed o roka auto xotan ko kiin fiyan ko kiin émission kon xaaga ka o jokana njal den fo waate reerit na émission na fop eno radio le fop fo xe ando naye ten refo yaal mbine staff ne fop maxey ñanana nuun nu yokoox bo yegin wax deg jegamo ɗayo maak xaye nu soɓidam kam nu foges mbiyanam émission jego ɗayo maak joka nuun a njal alors in way ngidma nuun ne i mbika koy selbe andame xana ci ina kimaleng rek no sereer radio wala sereer suuf sant yaam nu anda ye koy xaye i ngar a ngar me kam ley ten refu saax leŋ na xooytel Djilor Djilor koy a ref na département Foundiougne nda itam Djilor a ref saate cosaan Djilor itam a ref saax la andoona ye a ware waastel yiif a paax a paax a jega mayu ka te manquer na to itam we andoona ye deno ndefu na saax le a mbarano moƴo ndamit a paax a paax artiste fo maak fe koy na xooytel Selbe ten i ngotit u meen xaye mbaxtaan fo ten i mbaag'aan a ngooyo Ndakaaru wala ngooyi no mbiñ o lakas ndaa ka i ngarka no saaxum ɗeet ne te ñoowitna fo fogum ngar nga ke te laya yaam i nqur'angaan koy te gar no moofan in ma i moofa a waaga lay maaga ku ga'oona ndaa ino ke i nga'na meek rek a doya Selbe in way ngidmang ngidma we andoona yee den o na yoona fo in internet ke ndaa ngidma aussi staff ke andoona yee den o ndefu no radio le personnel fe LKJ maxey simnang simna a paax a paax Mosokoro Sidibé Saliou Thiaw Kambul Bass simna a paax a paax Ibrahima Niass Samb maam Ibrahima Niass Samb Jokel Laba Ngom ndaa itam Doudou Diouf simna a paax a paax Mamadou Fall ndaa in way simna a directeur programme in a ref Leyti Sène i ngidma a paax a paax oxe andoona yee aussi ten refu le PDG Tamsir Diouf oxe andoona yee koy ten présenté eegu émission ne a ref Makayre Ndiaye no radio le Sereer radio Sereer Ressource Centre i ngar'u me xaye no Djilor Selbe xar o a sooxa fo fog ole andoona yee a mbey seetanan direct no télé le waa DJ Mack maxey gidma fop xeɗana fop jam xeɗa o xiido le ki a samtir o xiido la moƴna na in xeɗana weno radio le xeɗana staff ne fop comme ne limtanona nen rek wa simo len képp xu refna maaga rek maxey gidman to jokana njal nda ɓato dakwid rek gidma yes a paax a paax a paax yaam fa pes tela telo ñak kam rimel jeg 15 jours fa pes a ñak andima fa pes mais yes me gidman a paax yaam a genoxa xam mete war xam a genoxa a jangxa teɓes den def to kes bo ngoy kiram gones yaya ngoy xam kon maxey joka den a njal a paax gidma famille ne fop mu kina refna ten no côté fa pes côté yes fop me gidma fop joka den a njal leya nuune nuun tamit njoko njal a paax jega moɗayo maak alors ñaanana keneen koy il faut a jeg ka fiyanoona it ka andoona I- yee xana xana xana xana xana sungin mbine hein, o nano fele fop a njegino a ande a Selbe koy xaye ten refu émission ne aca yaag ne i mbika rek ten refu o fogole euh, i a sooxit fa nuun rek laya nuun ne ke cawɓe babay i ngaƴa nuun fa Selbe fe andoona yee xaye ten refu xaye invité in meek nek Djilor Selbe Linguère aca fop a mbe seetanang a nangiloxogo sereeru sigim ka fa xola den la sa cosaani ni la tere sereeru sigim ka fa xola de la sa cosaani ni la tere sereeru sigim ka fa xola de la sa cosaani ni la tere kon joka nuun a njal a paax a paax a paax a paax a paax jegoɗayo maak na nuun e layanune koy ngat cosaan yerwa gon xaada yayi bintandawe ngat cosaan yerwa gon xaada yayi bintandawe ngat cosaan yerwa gon xaada yayi bintandawe yerwago genum yerwagon titarorta kam yarox jilor rek nda yerwago genum ten titarorta ten sagorta nda o ga'angan gimngel cosaan yerwagon xaada yayi bintandaw bintandaw ten def tawes fa ndew a bugaam lool a lamtaam lool ken taxum fokatin na kimale joka fop a merci njal.
beaucoup Yaako Merci beaucoup.
Fogole rendez-vous inchallah rabbi no séréer radio séréer ressource centre wo fe refna artiste in way ngara mbinof xaye i ngar o meek nek andoona yee ten refu Djilor ɗeetiida a Selbe Djilor